ñu gan euh, li ñu doon waxtaanee foofu la ñuy des ba léegi rek euh, Chérif ak euh, professeur Aboukan, nekk chef du département économie fële ca FASEG Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. ñu koy nuyu bu wax moom professeur Aboukan, Kane nekkoon agrégé nekk chef du département économie ca FASEG faculté des sciences économiques et gestion bu Université Cheikh Anta Diop bu professeur ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay Chérif di nuyu ñu toog ci plateau bi. Mm-hmm. laaj bu njëkk bi comme fi Souleymane jeexale situation bi Union européenne. ren Sénégal situation bi moom kii gagne kii perd. waaw euh, Souleymane yaakaar naa moom sax économiste la ndax lu mu fi wax yëpp. <laughs> bu mag euh, wax dëgg yàlla <laughs> waaw économiste yi ñu wax lu. lu gën a pertinent. Mhm. Euh, lu mu lu fi analyser yëpp il bien campé le débat et le décor comme on dit. Mhm. si wàllu Union européenne lu mu doon wax léegi mooy ñooñu ëpp doole ga te marchandise yaa ngi dem ak euh, yu mel noonu tëjuñu nit ñi rek la ñuy tere ñu dem wante il faut tamit ñu bàyyi xel ci ne dafa am ay signaux yoo xam ne day jouer ci économie réew maanaam bu ñu nee tere nañu Sénégalais yi dem wala vol yu jógee Union européenne ñu ñëw fii euh, économiquement parlant mun na mun na tax ñenn yaakaar ne dafa am ay risques ci Sénégal te xam nga dafa am lu ay wax risque pays mm-hmm. loo xam ne day impacté, ci même gis-gis bu ay investisseurs di am ci réew yi. donc bu ba bu Maroc amul problème Algérie amul problème Rwanda amul problème ak benen deuk Tunisie amul problème. ñu né mais nak Sénégal nangam nangam nangam. Mm. foofu duñ fa dem wala du ñu ñëw. day joxé euh, benn euh, ki bo xamné impression bo xamné euh, amener lo xamné Sénégal lool moy tax euh, politique les hommes politiques ak diplomatiques yeeg yooyu loolu lu am solo la ci ñoom yow da ngay wax ne xeyna amul ben ben solo ndax marchandise bonnes doon dem situation pays bu melni Maroc ci côté sanitaire Sénégal mo leen sauf que de que. Euh, joxuñ confiance Sénégal. parce que comme ni ñuy déjà on ñi ngi wax ni que Sénégal dañu ñi ngi wàññi nombre de tests pour minimiser la vérité des chiffres. non je ne pense pas mais mais si le ma doon wax légui man bo xolé bu situation Covid bi kessé mhm. Sénégal mo tane Maroc. mo tane Algérie. exactement xëy Tunisie mo tane. Rwanda mo tane donc euh, nit ñi mën nañ poser question ne su fekké né mbiru santé la rek lan mo tax ñuy nangu Algérie. ak euh, Maroc di bañ Sénégal. Mhm. te euh, affaire bi day am beneen jeexital nag euh, gis nga Sénégal boo xoolee ci wàllu suñu commerce extérieur. Mhm. Union européenne suñu premier partenaire commercial. Mhm. topp ci Chine yu mel noonu. même su fekkee ne si côté dynamisme maanaam luy yokk si at. Chine waaye gis nañ ne. affaire yaa ngi yokk tout le temps mais boo xoolee en terme de volume ba léegi Union européenne moo nekk si kanam. donc boo amee partenaire commercial bu mel noonu. Euh, mu am genre problème nii ñu ne maanaam duñ fi ñëw wala ñoom duñ duñ fa dem euh, loolu c'est normal que état du Sénégal def ko problème bu rëy ci boppam te il faut nag il faut nag ñu régler ñu lijjanti loolu noonu parce que yéen a waxu tourisme tourisme Sénégal 7 pour cent la fi représenté mun nañu wax bëri na bëriwul wante dafa am ay effet d'entraînement yu bëri mm. euh, souvent dañuy xaw a jaawale am nga économie mm-hmm. loolu moo ko wuutale ak mécanique wala mathématique maanaam boo toogee fii nga def moins cinq boo si yokkee plus cinq da ngay ñëwaat fi nga ne bu dee mathématique ngay def mm-hmm. Mm-hmm. mais économie c'est pas parce que dañuy wax ni euh, secteur bi perte na euh, dix milliards mm-hmm. nga injecté fa dix milliards rek nga delluwaat euh, fi nga ne newoon dafay daf parce que dès l'instant où quelque chose a bougé rek dafay am yeneen yu bëri yoo xam ne day bouger donc voilà comme kii lu mu doon wax léegi Souleymane xam nga économie Sénégal dafa bëri woon ay moteur boo ñëwee si mécanique bu sa oto paanee moteur boo jëlee moteur bi dugal si beneen moteur rek day dem mel mel nu mu melo mm-hmm. mm-hmm. waaye fii même bu moteur ba grippé nga changé bi moteur bi euh, du tax nga delluwaat fa nga newoon mm-hmm. te loolu dafa am facteur yu bëri un des facteurs important nag mooy perception bu nit ñi ci àdduna bi di am ci santé de l'économie sénégalaise loolu moo tax nag mbiru Union européenne bi ak Sénégal mu nekk lu rëy ci état du Sénégal loolu foofu noonu lañ ko war a hmm. jàngate hmm. waaw noonu lañ ko war a jàngate te hmm. loolu je suis parfaitement d'accord te euh, boo xoolee tourisme bi jaspora euh, bi lu muy indi mbat na ñetti yoon lu lu tourisme bi di indi donc xam nga su fekkoon ne si affaire chiffre rek la ñuy wax dañuy wax bon euh, c'est pas tellement important par rapport ak diaspora bi lu muy indi si réew mais jarul xeeb waaw mais mais nag même boo tëjee frontières yi ci ak Union européenne wax nañ ko léegi diaspora bi si boppam ñoom dootuñ mën a indeeti ñu la indi ndax situation pays yooyu sax demeewul noonu ñun ñoo leen tane sax pays union européenne mhm. ci côté santé mhm. ñun ñoo leen tane ñu diaspora bi mënatuñu liggéey léegi bu buñ lay laaj nag ci plan de relance bi comme ni ko Souleymane waxee gouvernement bi léegi foofu lañ jëm mhm. ginnaaw kon mbas mi il faut ñu dund ak moom euh, léegi est-ce que jàpp nga ni stratégie bi baax na ngir Euh, quel que soit durée bi nga xamante ne fi mbas mi def wala muy fi jóge ñu mën a teguwaat ci raay yi waaw xam nga difficulté bi wax nañ ko léegi mooy kenn xamul kañ kañ lay mbir mi di jeex c'est normal nag que chaque pays di def plan de relance mais plan de relance euh, c'est glissant dañ koy ajuster nekkul par exemple Sénégal bu génnee tey ne plan de relance baa ngi nii mhm. du caage ne euh, plan bii la doxal rek mm. 2023. Euh, actuellement nous ajustons ajusté PSE. Euh, PAP 2 euh, programme d'action prioritaire prioritaire bu deuxième phase PSE mais nous ajustons ajustement yooyu yëpp ay hypothèse kese la. kenn xamagul exactement fan lañ jëm ndaxte ko taux de croissance bu ñu wax ne 1,1% lay doon ci 2020 bi fi quelques verres mën nañ ko réviser waat. Mm. né la léegi c'est moyen etc. cetera. Mm. donc xamaguñ lu tax nous ñu lal ko ci mbay parce que xam nañ né ci Sénégal. ñu si ëpp si mbay mi lay yëngatu wala lu am rapport ak mbay mi hmm. te bu ñu nee mbay tamit il faut que nit ñi bàyyi xel ne du question dem bay dugub bay ceeb bay kese dem ci mais transformation hmm, hmm, bu ciy am agro alimentaire la ñuy wax bu ñu euh, euh, suqalee mbay mi ñu fexe ba produit yi yuy jógee si mbay mi muy alimenter benn industrie bu nekk si dëkk bi nga xam ne dinañ transformer yenn produits yi soo ko jaay ndax boo xoolee Sénégal lu muy jaay si bitim réew lan la or la phosphate gerte ak lu jógee ci géej gi mhm. yooyu mooy produit halieutique yooyu mooy yu gën a bëri si li ñuy jaay mhm. te boo xoolee luy jógee ci géej gi dañ koy jël noonu génne ko mhm. amul transformation luy jógee ci mbay mi gerte gi dañ koy jël jaay ko duñ ko euh, transformer lu bëri or bi moom waxul waxaale wuñ ko sax ñooñu nee na muy jógee foofu fa lañ koy fa lañ koy jëlee euh, les industries chimiques ak yooyu boo xoolee phosphate bi indien yi ak léegi marocain yi mm. daanaka ñoo ñu si dominé donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que ñun ñu ngi am ay exportation yu ñuy indil ay devises certes mais affaire bi c'est très volatile parce que lu mu reposé moo dëgërul mm. da ngay jël jaay su fekkoon nag dangay ñëw nga transformer yenn yi nga xam ne day am ay industrie yu nekk ci dëkk bi mm. xam ne dina transformer yenn produit yi di am créer ay emploi créer valeur ajoutée ainsi boobu lay gën a naqaree daaneel. ndax maanaam du du du ngelaw lu ñëw. ko daal mais fii yëpp si bitim réew lay dépendre. ndax pris yi sax du ñun ñoo koy fixé daanaka. si marché mondial bi la ñuy dépendre. moo tax nag boo bëggee def plan de relance bu dëgër. il faut que nga euh, focaliser aussi foo xam ne. say say waa kër fa la ñuy gën a yëngu. mooy mbay mi napp géeg yooyu. mais nga fexe ba changé nag cest à du comme nu mu daan demee nga xam ne da ngay jël rek mais nga changé Euh, ñuy transformer yenn produits yi mm. fii nii loolu nag mooy importance su euh, plan de relance bi ñu ñu teg ko si si mbay mi mm-hmm. te ginnaaw mbay mi wax nañ fi ay yeneen produit euh, kii secteurs yu bëri comme ay tourisme ak yu mel noonu mm-hmm. mais am na côté économie numérique bi gars yi bëgg tamit développé mm-hmm. parce que gis nañ ne avec mbas mi am na ay opportunités yu bëri yu ne te Sénégal un des plus gros scandales Euh, de l'économie sénégalaise noonu la xam ne tuddee mooy boo xoolee euh, télécom ak euh, secteur bancaire gis nga yooyu mooy ñoo xam ne dañuy mobiliser xaalis bu bëree bëri bëri si dëkk bi mhm. waaye joué wuñu rôle bu ñu war a joué surtout banque yi boo xoolee Sénégal crédit intérieur bu ñu bu ñuy jox au secteur privé mhm. ça tourne autour de trente pour cent mhm. mais xam nañ ne dëkk yu bëgg a émergent wala yu émergent wala yu koy xalaat yëpp Nous sommes autour de 60 70 80% donc ça veut dire que un secteur bancaire bi. devons soutenir euh, soutenir secteur privé parce que c'est 30 du PIB le crédit euh, intérieur mhm. par rapport au secteur privé mais bon comparé Maroc nous autour de 80 y a un pays y ay Corée passé nañ 100 Il ay France ay yenen mhm. donc lolu benen affaire la boo xam réglementation lay laaj changement de réglementation mhm. euh, ci union bi ndax lolu du du Sénégal dong mhm. il faut que wa e ñu xamné ñom amna rôle bu ñu war jouer ci côté bobu non mhm. buñu buñu bañé lu melni diñu dalat

talatuñ ko woon bi mbas mi duggee la ko gars yi talatul te avant sax même bu mbas mi amutoon. Mhm. ñu bëri ils étaient sceptiques. Mhm. Euh, quant à l'opérationnalité de cette chose parce que gisoon nañ ne. Mhm. dëkk yi dañ doon moytu wante. maanaam boo xoolee dëkk UEMOA ñoom ñu ngi doon accroché wu si beneen écho boo xam ne euh, maanaam CFA réformé la. Euh, mais dëkk anglophone yi comme ay Nigéria. ñoom loolu da leen a métti parce dañoo ne déjà tour bi euh, ñun waruñ koon utiliser ndax éco moom CEDEAO moo ko moom waruñu wax éco deuxièmement lu ñuy wax ne dañ koy continuer di ko arrimer si euh, monnaie européenne mooy euro dañoo ne woon loolu tamit ñoom d'accorduñ si mhm. donc loolu amoon na déjà ay problème mhm. te lu indi problème bi nag si éco bi depuis le départ mooy waa UEMOA suñu dëkk yi ñun dañoo yaakaar ne ñun ñoo gën a mën a gérer ay Nigeria, ay Ghana parce que ñooñu bo xolé ci wàllu par exemple taux d'inflation, dañ dañu 11 15 yi jëm kaw ñun moins de 3 pour am ay 2 1 deuxièmement déficit beaucoup. Nous, ñun ni ñuy maîtriser suñu déficit. Mm-hmm. parce que am nañ pacte de convergence. bu ñu contraindre pour ñu waccé nous, ñom duñu def lool ñun ñun nous sommes plus vertueux que ñom mm-hmm. ci côté gestion des finances publiques. Mm-hmm. à l'inverse ñom dañoo foog ne nag ñoom ñoo ñu nous indépendant. parce que ñoom jàpp nañ ne ñun ba léegi France moo ñuy wax fii ngeen di jaar wala fii ngeen di jaar donc ce qui fait que depuis ñuy wax waxu écho mm-hmm. euh, nit ñi sentiroon nañu ne affaire bi dañuy wax nii de manière diplomatique mais euh, du dem concrétisabilité bi voilà donc Souleymane question. Euh, non non si si si rôle banque yi. Mm-hmm. xëj na la ñu waroon insister tuuti lu tax banque yi. du financer économie bi nu mu waree mhm. xaalis bi ñi am bi bi ñuy mobiliser mhm. avec l'épargne publique ak mhm. yenen euh, levée de fonds ñu am notamment au niveau de la BCEAO BCEAO ubbi na gën na lu muy joxé ci guichet yi ñaari guichet yi muy joxé xaalis banque yi xaalis bobu fa lañ koy jëmlé xam nga lolu euh, si euh, lu wax léegi affaire réglementation parce que fu mu tonni crédit court terme rek li ñuy joxe alors que boo bëggee suqali réew da nga jox crédit long terme. Mm. nga xam ne entreprise dañ ko mën a utiliser sur le long terme pour investir mais su fekkee yow da lebal nit ki ne ko il faut nga fay ko si ñaari at yi wala si benn at wala si et cetera déjà euh, volume bi mënul toll nenn ni mënul yem ensuite euh, contrainte yu entreprise bi di am euh, pour gaaw ko rembourser du ko du tax mu mun a investir si ay domaines yoo xam ne di nga toog ñaari at ñetti at. te doo amagum parce que aussi xam nañ ne investissement noonu la demee début bi day métti c'est après ngay commencer di ñëw loolu euh, affaire réglementation la loo xam ne dañ ko war a changer ci dëkk bi parce que sinon euh, dañuy continuer di am ay banques yu bëri ay établissements financier yu bëri si biir réew mi ak si biir UEMOA wante nit ñi duñu dox moo tax état du Sénégal mettoon en place ay BNDE ay FONSIS ay FONGIP pour mun a xaw a Euh, changer situation mais force est de constater que ba léegi doy na le BRBM sax voilà BRBM dañoo xam loolu la ba ñu créer li wax troisième compartiment mooy pour PME yi mun a euh, lever ay fonds. dernière dernière question rek li nga doon wax également ci télécom yi xam naa bu ñu mënee wan Vox Populi parce que ñëw nañ wan ñu ce que pèse li nga xamante ni télécom yi muy lu bari ci ay koppar. Mm. je pense que télécommunication yi ñoom ñoom kese war nañoo mën financer plan de relance boobu. dañu gis ne yu mel également bu amé mm. Sénégal gis nañ ko ci plan Sénégal émergent dañuy dem jël ay cabinet ca bitim réew ñu leen koy tëggal ak yu ni mel or que fi amna na ay borom xam-xam yo xamante je pense que. Mm. war na leen mën a impliquer ci travaux yi ñu bëggoon a laaj ba xam yéen en tant que économiste ak seen euh, difficulté boobu impliqué dans l'un déjà ci nga xamante ah, il faut dire que c'est l'une des l'une des révélations ou en tout cas l'un des des points forts du Sénégal am ci côté euh, ci Covid bi ndax euh, en tout cas côté université mom mm-hmm. gars impliqué nañu bu baax euh, chercheurs yi si lépp lu ñuy def ci travaux yi mm-hmm. ñuy def maintenant par rapport ak li ngay wax cabinet étranger yi des fois yi ñuy dugal ci biir mm-hmm euh, même avec PSE ou avant PSE, il faut dire que c'est l'administration sénégalaise qui faisait mm. le travail. Mm. Mais, dafa am ay signaux comme nous ko waxé won yo xamné man suma suma défé document bi yépp ma signe mm-hmm. ñu yobbu ko ci yenn instance yi mën nañ ko bañ jox importance mm. mais su fekkee ne dafa porter yenn signature yi ñoo xam ne ñooñu am nañ crédibilité xam nañ leen loolu day gën a tax nit ñi gën a sawar ci ci financement bi yoy moy tax souvent. Mm. ñu koy mm. mais sinon administration sénégalaise ak secteur yi ñoom nañu. di contribuer ci plan yi ñu am yëpp ci biir Sénégal. merci beaucoup professeur Aboukan, amon voilà euh, amoon nañu mbégte lool di la dalal waxtaan bi amna solo. mu ngi non moy fatali ne mom moy chef du département économie fële ca FASEC université Cheikh Diop bu dakarou mm. légui légui dañuy dem miroir régional inter.